dañoo ñëwoon tey ànd ak euh, bureau municipal bi ak conseil municipal bi ak commission sociale ci ni ñu ko baaxoo defee at mu nekk bu bis yu mel nii ñëwee muy bisu lu mel ni suñu bis bi nga xam ne amuñu bu ko gën a rëy muy màggal ak Touba muy bisu tabaski muy bisu tamxarit ci jëm bis yooyu nga xam ne dañuy fi faral di génne ay ndimbal di ko jox ñi nga xam ne aajo woon nañ ko te suñ borom nattoo leen ñu yor ak njaboot te lu bari war leen te jamono bi am num mele ci ñenn ñi loolu moo taxoon nag ci dëkk bi di dëkku yërmande di dëkku taalibe di dëkku sëriñ bi di dëkku social loolu moo taxoon bi ñu waxtaanee ci bureau municipal ak conseil bi ñu wate woon nag ci social loo xam ne dañ ko koo cërale loolu nag ci commission sociale ak CEPRES euh, bi nga xam ne moo nekk fii ci gouvernement bi teg ko fi ci ndigalal ministère bi l'intérieur ndigalal gouverneur de la région préfet de Mbacké su préfet de Ndam ñu ànd ko ak ñoom ak commission sociale bi ñi nga xam ne dañ koo aajowoo te di ko déposer ay ndimbal ci façon bu nekk moo xam ñi nga xam ne suñ borom dafa dogal ñu am ñetti doom moo xam ñi nga xam ne dañoo am ñaari doom te yàlla dogalut ñu mën seen bopp niñ ko niñ ko bëggee ak ñi nga xam ne dañoo wéradi nekk hôpital te am ay jafe-jafe ci ay analise ak rajo ak ordinance ak ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe njaboot ci seen biiri kër ñooñu kenn ku ci nekk boo am na fooy déposé sa sa dossier ñooña traité ko indi ko ci commune bi bu ñëwee ñu jox ko buñ ko dajalee nag ba jamono yu mel nii tabaski di jub wala màggal di jub wala leneen di jub ñu jox ko commission sociale commission sociale bi saytu ko ànd ak siise mi nga xam ne moo fi nekk di CPRS bi ak ñi ko war a ànd ñëpp saytu ko ñi nga xam ne yelloo nañ ko ñu yëkkati ko kenn ku ci nekk ñu seet la nga xam ne moom nga ci mën a am ñu ñu ñu ñu ñu def montant boobu euh, bu ñu ko boolee nag bi ñu boolee lépp nag ba nëgë nii génne nañ ci keesu budget maire bi vingt-deux millions sept cent trente yoo xam ne moom lañ leen bëgg a séddale loolu nag bénéficiaires yi nga xam ne ñoo ko moom muy ñi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ko seq nekk na juróom benn téeméeri nit ak juróom ñett fukk ak juróom yoo xam ne ñoo ko seq juróom six cent quatre cinq personnes ñoom la ñuy séddale vingt deux million sept cent trente mille mooy montant bi nga xam ne moom la ñu de génne ci tabaski gi muy commune Touba ci ndig ci dajab dogalab bureau municipal bi ci dogalab conseil municipal bi ñu génne ko war koo jox seeni borom génne bi nag aw ak joxe win wi saytu nañ ko ñi jox nañ ko ñu maandu ñoo xam ne yaakaar nañ ni ci àddina duñ ci fayu duñ ci leble duñ ci fay bor danañ sàmmante ak ak sunu borom tabaaraka wa taala ndax séddale ak atte dafa dafa laaj maandu def saytu nañ ko teg nañ ko loxol ñoo xam ne yaakaar naa ne liñ ci war a sàmmante lépp sàmmante nañ ak moom ba woo nañ tey mbooloo mi ñu ñëw ñu war leen a jox kenn ku nekk li nga ci am nga mën a dem toppatoo ci sa njaboot. loolu daal defe naa ne mooy li nga xam ne mooy daje bi tey ñi woo leen du neex dara nag ñu exposé leen kenn ku ci nekk ñu di ko identifier ndax nit dafa bëgg sutura waaye mbooloo mépp a ngi nii waaye maa ngi ñaan rek xar yi ñu bañ koo identifier ndax da réew mi day réewam sutura réew mi di réewam secret nit te nit bari na lu buy am day am bëgg am ci sutura buy ñàkkit bëgg ñàkk ci sutura waaye bëgguma bëgguñu mbooloo mi ñëpp a ngi fi nag mbooloo maa ngi fi dañ leen di woo ñu ñëw kenn ku ci nekk signé ñu jox la li nga xam ne moom nga ci am waaye nag mu ànd ak sutura mu ànd ak wormaal leen ndax doomu aadama dafa bëgg sutura te ñi ko yor maandu nañ maandu goo xam ne ndax waa commune bi la ak waa muqaddimatul xidma wi nga xam ne ñoo yor jumaa ji euh, ci ci njiital Serigne Sidi Abdou Aziz mi nga xam ne mooy premier adjoint mor maire Serigne Babacar Mbacke mi ngi nii ah Abdou Lahad Bousso mi ngi nii ak ñoom mboolem ñi nekk ci commission bi Ndiaga Diop. Moustapha Missira ak mboolem waa commission bi ñu ngi nii taxaw ñoom ñooy toog joxe ko kenn par kenn ba mu jeex ndax dañoo bëggoon sax bu ñu ko engagé ñoom ñëpp ñu dem trésor waaye payeur bi ne nañ ko jël indi ko fii ànd ak waa trésor mu toog waa trésor day toog maire bi toog mu xaddimaatul xidma toog ay nit la ñu tànn daal yoo xam ne nit nag bu la doyee ci jumaa ji doy la ci bàq ya maanaam bu la boo boo ko séddalooyee yaakaar nga ne ci maandu lay dox looloo tax ñu boole leen ak conseil municipal bi Serigne Abdou Assis mi nga xam ne mooy premier adjoint bi jiitu ko ak mboolem président commission sociale bi ba Bassirou si mi ngi nii ñëpp a ngi fi taxaw ñu séddale ko ci maandu di ñaan képp koo xam ne da am jàngoro yàlla na ko yàlla saafara képp koo xam ne da ngaa amee tànk-tànk jafe-jafe jamono yàlla na la suñ borom wàcceel xéewal ba nga fàtte ko di nuyu nag. mbooleem kilifay diine yi nekk ci dëkk bi ci bis bii di ñëw di leen siyaare di leen ndokkeel di leen bal di leen ñaan ñu ñaana réew mi jàmm waaye ñu ñaana réew mi <clears throat> nawet bu barkeel mboolem imaam yi nga xam ne téeméeri imaam yi nga xam ne ak ñeen fukk ak juróom benn yi nga xam ne ñooy julli it ci dëkk bi téeméeri ak ñaar fukk ak juróom yëpp danañu fa dem siyaare leen ndokkeel leen maanaam ñaan leen ñu ñaana réew mi jàmm tey ñaa ñaax xale yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu tegu ci aw yoon te dal ndax loolu dana indi jàmm cim réew ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.